ku ñu bëgg a xeex xeex ñu feneen wante nga may ñu aafiya ñu mën a liggéeyal suñu askan ak liggéeyal suñu dëkk loolu dama koy ñaawlu parce que ma bëggoon wax ci leer mairie de Dakar kenn fas yéenewul sukkandiku ci mairie de Dakar pour financer campagne man toog naa fi mairie de Dakar nekk comme maire dem naa élection législative te ñoom xam nañ fu may waxee jëlee ko fi te campagne nañu ñun soxluñu ay milliards pour campagne ñun lu ñu soxla pour campagne yàlla baaxee nañu ko ba pare mooy oto essence ak micro jeex na te lan la élection am yàlla mooy buur ñàkk yàlla mooy buur wante norul doon excuse pour ngay xeex ba dugal ay nit ngeen xam ne ni seen yoon nekkul ci xeex jooju mooy askanu Dakar moo tax may sakku ci président Macky Sall comme nee nañ ko ko ñaan ci ci naka ci yar ak tegin ci njëkk waaw kon nag ci njëkk nag ñu delloolu Dakar moom mooy suñu trois milliards wax dëgg yàlla cinquante cinq millions du ko jël du ma ko jël parce que man je ne suis pas là pour manger du ma yelwaan du ma yelwaan lu ngeen xam ne ni loi moo ma ko jox kon nag na ko ñëpp déggee noonu kon ren su ñu demee ba état teg tànkam fu mu ko teg te bañ fa bañ ko fa jëlee nañ ko ñëpp déggee noonu ñun suñu projet dañ ci continuer di ci liggéey wante lii di ndaw ñi sax seen école lii di ñu feebar nañu noonu leen faj ak ñoom seen ku mu neex nag tamit taxaw ne man suma yoon newu ci soo yoon newu ci ba bës bu nga ci am soxla te xam naa lu may wax parce que ci dëkk bi amul bés ba ma dul jóg ci dëkk bi ñett na ma meer dama bëgg a jàngi wala suma doom wala suma mbokk wala suma lii wala suma laa amul bés bu ma dul ci dëkk bi wala ma nekk bitim réew du ma jot message ne ma suma yaay dafa feebar suma pap suma lii wala suma laa donc képp ku fi taxaw nga ne suma yoon newu ci ndax lan parce que peut-être bokkuñu gis-gis wala lii wala laa su neexee nga toog tey ne suma yoon newu ci ba ëllëg ëllëg soretul moo tax na ko ñëpp déggee nu ma ko waxee parce que nag wax dëgg yàlla man mënuma xeex xeex bu ngeen xam ne du suma xeex man lu ma mën mooy artu lu ma mën mooy yëkkati suma baat ak lu ma mën peut mooy sàkku ci état bi ñu dellu siwaat seen xel parce que lu ñu def Dakar tey balaa may dee may gis ay candidat ñu ne dañu bëgg doon président du Sénégal euh, ñoom fàtte nañu sax que lépp luñ fi tong-tongee ci suuf bi Dakar seen loxo ngi ci dañu fàtte ne que lépp lu ñu xañ Dakar pour Dakar mën gën a développé wu seen loxo ngi ci yéen ñëpp xam ngeen parce que ngeen dégg lii di emprunt obligataire ville de Dakar vingt milliards ville de Dakar dem ba jot vingt milliards ñi taxaw fële yàq signature bi tey taxaw ne dafa bëgg a doon président du Sénégal su ko neexee wante man lu ma gëm mooy askanu Sénégal du ñu askanu mala dinañ fàttaliku démb ak ki dem